bàyyi ka kan. mais maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Balla naka mu. sant yàlla. Balla tey teew nañ euh, kontaan nañ tey ci sa teewaay fii ci biir arène nationale nan arène nationale day soxla champion yu mel ni yow tey sa teewaay ci biir stade bi ku ne xam na ni Youssou Ndour sa rakk mooy bëri tey bi nga ñëwee lan nga ko wax lan nga ko digal. waa sant yàlla alhamdulilah man ñooy fekk stade bi taaru man ni sama plein. ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam incha allah di kontaan ci amateur yi lii lii moo lay wan ngi